dali nag jàmm ñu ànd xëyër yéen kaay ñu xëyando yéen kaay gi di réew mi quotidien l'observateur vox populi las sud quotidien enquête les échos yéen kaay yëpp xëy dikkal ñu ci discours à la nation bi njiit réew mi di président Macky Sall wax fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu génn yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñuy xamal ñu njiit réew mi di Macky Sall gën naa lëndëmal li nga xam ne mooy xel ci lu soxal mbirum ñetteelu mandat bi ndax nag moom Macky Sall jamono ji daal ay mbiram leerul lëndëmu la waaye Macky Sall defee ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal ñun waa réew mi quotidien mbir mooma nag du ñu daal di bett ndax Macky Sall sol na ay dàllama jaar si yoonu ñetteelu mandat yéen a kaay gii di laas mu ñu xamal naan ñu Macky Sall kay jamono ji dafa lamberal li nga xam ne mooy xel ndax nag bi ñu ko laajee na ko monsieur le président da ngay def ñetteelu mandat wala doo ko def Macky Sall nag la mu xamle nee na du wax waaw du wax déet journal bi ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag daal dinay weddi li nga xamante ni Macky Sall daana kay ko ak ci bor bi nga xamante ni Sénégal daal na koy amee journal bi di l'Observateur mu ñuy xamal nañu neexul ba neexul mais Macky Sall bëlëf dëgg la Macky Sall daal def dafa lëndëmal li nga xamante ni maanaam moom mooy xel jaaree ko ci wii wala non journal bi moom Macky Sall daal dafay xamle ne jamono ji amul kenn koo xamante ni moom laa tànn ngir nag mu daal di may wuutu Abdoul Mbaye mi nga xamante ni moo fi doon wax ne Macky Sall amul gis-gis Macky Sall daal na koy tontu la mu xamle nee na li nga xam ne def na ko ci réew mi bu nit gis dangeen koy laaj ba xam moom ma ngi gis wala déet Cheikh Diop bu CNTS FC la mu xamle nee na question yu am solo yu am njariñ yi nga xamante ni moom lañ doon xaar Macky Sall wax ci waxu ci dara ba dara booloo Macky Sall nag journal bi di réew ko quotidien a Vox Populi nee na Macky Sall ma ngi woo Sénégalais yépp ngir ñu génn ngir nag dëkk bu set wecci journal bi di Dakar Times mu ñu xamal naan ñu 31 décembre njiit réew mi di Macky Sall nay wax ci li nga xam ne maanaam mooy courant bi ak ci wàllum nag wàllum ndaw ñi wàllum sécurité bi ak lu soxal wàllum politique sociale journal bi mu ñu xamal ñu Macky Sall nag lu jëm ci wàllum yokk courant gi moom daal daf cee ànd maanaam ni ko Makhtar Cissé gisee noonu la ko Macky Sall gisee Assane Ba bu PDS la mu xamle ci biir journal bi nee na Macky Sall ci boppam maanaam question yi nga xamante ni yu amal askan bi njëriñ Macky Sall daf ko daal di teggi gi di réew mi quotidien mu ñuy xamal lan ñu waa Sénégal ñoom nag daan na ñuy tëj bii di Sen TV ci lu toll ci ab ay bës la yéen kaay mu ñu xamal xamalal ñu Bougane Gueye Dany moom nag daanay wax ne dina yóbbu waa CNRA fa mbaxana doone penn ndax dafa jàpp ne mbir mi daal mbirum jaay doole la journal bi nee na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay agent Sen TV yoo xam ne ñoo ngi ci chômage technique la ko waral nag mooy télé boobee da doon jàllale mbirum xeesal ñu tere woon leen ko ñoom nag dañoo jàpp ne mbir mi daal la ñu invité Ousmane Sonko moom moo tax ak li nga xam ne mooy ligne éditoriale bu groupe des médias journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamalal ñu Guinée Bissau am nañu njiitu réew bu bees bu tudd Umaro Sissoco Cissokho ambalo journal bi daa dikk moom laasa ci étudiants yi nga xamante ni jamono ci daan nañ leen di teg loxo tëj leen lu toll ci fukki weer ak juróom-ñett ana lan moo tax ñu tëj yooyu la étudiant ci kaso bi la ko waral yooyu la étudiant nag dañ doon bind ci internet bi di invité jigéen ñi ngir nag ànd ak ñooma maanaam di def yëfu saay-saay journal bi mu ñu xamal ñu yooyu la étudiant nag prostitution déguisée moom lañ doon def ci internet bi